بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi di julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ weneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindab tay bi ñoo ngi koy def ci benn saxaaba boo xam ni ku ràññeeku la woon ci biir saxaaba yi ci mboolem buntu yi nga xamante ni nit ki mën na koo fëgg ngir defaru wa huwa abdullahi ibni umar ibni alxataab radiallahu anhu wa an abihi wa an jamii alsaxaaba bindab tay bi ñu ngi ko jagleel kenn ci saxaaba yu ràññeeku yi nga xam ni mboolem lu nit ki soxla ci buntu defaru rek mën nga ko amee fa moom ci dundam ginnaaw tawfiqi sunu boroom kooku mooy abdullahi ibni amar jàpp naa ni waxtaanee abdullahi ibni amar ci kanamu ay ndaw dafay ëpp solo moo sax waxtaanee beneen saxaaba ci kanamu ndaw yi li waral loolu mooy abdullahi ibni amar kéemtaanu sunu boroom la woon ci biir mboolam saxaaba yi ba noppi waaye dafa bokkoon ci gone yi loolu in dalla ala shay'in su amee lenn lu mën a tegtale di ko joxoñ mooy ndeke kenn warut xeeb sa bopp ci biir mbooloo mi amaana nit ki jàpp ni moom gone la rek bokk ci li koy delloo gannaaw mooy mu fas ni moom kat amalut njariñ lu am solo diineem fekk déedéet ay ndaw yoo xam ni ci doon keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ yaroo ba mel ni abdullah ibn omar te nekk ay modèle comme ni ma ko doon waxee ci muqaddimaatu dars yi passé bu ngeen seetloo jamono jii ñu toll mbokk yi xudwa dafa jafe mooy xawma repère lañ koy wax wala référence lañ koy wax wala koo xam ne da koy teg ca kanamam di ko roy ngir aw doxalinam di ko roy ngir ak jubam ak jubbantikoom waaye di ko roy ngir ni kat kookaa ko dàqaro yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibni amar mbokk yi am na benn jagoo goo xam ni yàlla baaxee na ko lu waay ñàkk ñàkk ñàkk jàng maadaama mas ngaa dégg tur wi rek xam nga ko mooy saa boo tuddee turam rek sa xel li muy njëkk a daj mooy bëgg sunna saa boo tuddee abdullahi ibnu amar sa xel li muy daj mooy bëgg sunna ndax yeneen saxaaba yi dañoo bëgg loon sunna ahan kay bal kay ñu ko gën a bëgg sunna sax ñoo fa newoon waaye comme ni ma leen ko waxee woon ci bind yi weesu saxaaba yi kenn ku ci nekk sunu borom daf laa defal ak jagoo ndaxam boo déggee ñu naan dëggu ci Abu Dar tekkiwul dafa gënoon a dëggu saxaaba yi boo déggee ñu naan kersi ci Osman tekkiwul da ko ëppoon ñeneen ñi wala yu demee noonu ñeneen ñi amoon nan ko ba nga leen ko lool waaye nag moom da caa amul jagoo ndax yonent bi da caa wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummul muminin Aisha da daan wax ni ma raaytu ahadan alzama lil amri l awal min ibni omar mësumaa gis koo xam ni teg tànkam ca la yonente bi nekkoon te mësu koo teggi du soppeeku mukk mësumaa gis ku ci mel ni abdullah ibni omar allahu akbar loolu loolu mbokk yi seede gu rëy la te jàpp naa ni kam bàyyi ko vraiment mérité na pour seede ko ndaxam xam ngeen ni su ko keneen waxoon ak lu mu bokk bokk ci saxaaba yi mën nañ ni ko xëy na yow jege woo yonente bi genn jege ga waaye Aïcha mi jege woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam miin ko xam ko di dund ak moom su ne gisuma ku mel ni Abdullah ibn Omar ci roy yonente bi di ko toppandoo maa ngi jàpp ni ku ko dégg dana xam ni ki seede li mu wax moom xam na ko abdullah ibni omar borom téere bi alcheikh mahmoud al masri xafidahu llah wa an jami al ulama al ahya nee na dëgg dëgg bi ma téye sama xalima pour war a bind ci dund abdullah ibni omar nee na dama amul jaaxle may laaj sama bopp ni waaw lan laa war a bind ci waajoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon ustaasam bi ko doon jàngal nga xam ni moo njëkk a def ca moom lam ca def lan lay bind ci waajoo xam ni Omar ibn al-Khattab mooy baayam allahu akbar xam ngeen ñaar yu rëy ngoo jàpp naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa sëriñ bi la jàngal ba nga mel ni nga mel kooka ku rëy la war a doon waaye lan laay wax ci waajoo xam ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy baayam nee na kon su boobaa mënuma lu dul rek jéggalu ci bépp gàttañ lu boo xam ni gàttañ lu naa ko ci keno bii nga xam ni ci keno yi lislaam yi la bokk mu ne may jéggalu bépp gàttañ lu boo xam ni gaar na ma ca abdullah ibni omar radiallahu anhu nga xam ni dañ koo xamee ci bëgg njub ak xam-xam ak la nga xamante ni mooy toroxlu ak jubbantiku ak la nga xam mooy fegu ak li nga xam ni mooy tabe jaamu yàlla ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yii mbokk yi ay xeeti yëpp la yoo xam ne benn bu ci nekk Abdullah ibn Umar da cee ràññee wallahi ku yàlla baaxi subhanahu wa taala nga am tuuti mën a gëstul sa bopp nga yër am na ñenn ci saxaaba yi booy liir seen dund la nga yëg ci ngëm yàlla da ngay mujj mel ni sax yow yaa ngi toog saxaaba yi dund ak ñoom loolu nag ginnaaw bu ñu ko gërëmee suñu borom nii seen borom dañ koy gërëmee suñuy borom xam-xam yi nga xam ni amut lu nu bàyyi ci yonent bi mbaa ci saxaaba yi lu dul lépp safaruuhu fi lkutub bind nañ ko leeral innahu abdullah ibni amar ibni alxatab alimam zahabi saaxibu siyar boo delloo ci siiru alaami nubala ca mujalladu ñetteel ba ba muy tarjamaal sigaaru saxaaba ndax dafa am bunt boo xam ni daf koo tarjamaal saxaaba yi ba mu demee ba muy waaj a jeex dafa ubbi benn buntu tuddee ko sigaaru saxaaba mooy goney saxaaba yi ba mu ca noppee ubbi beneen bu tuddee ko kibaaru taabi'un mooy magi taabi'un yi ba mu paree ubbi benn bu tuddee ko sigaaru taabi'in noonu la continuer ba ila zamanihi mu nga fay wax ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Ribah ibn Qurt ibn Razah ibni adi ibni kaab ibni luway ibni ghalib xam kaab ibni luway ibni ghalib ñooñu ci maam yonent bi lañ bokk kon aw askanam foofu la jonjonteeg askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni cheikhul islam abu abdirahman alqurashi aladawi almakki wal thumma almadani aslama wa huwa صغير ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد فأول غزواته الخندق وهو ممن بايع تحت الشجرة وأمه وأم المؤمنين حفصة زينب بنت مزعون أخت عثمان بن مزعون الجمحي نينا عبد الله بن عمر دومي خطاب دومي نفيل دومي عبد العزى دومي ربا ربا رياح دومي قرب دومي رزاح دومي عدي doomi kaab ibne luway ibne ghalib nga xam ne ñii ma lim ay maam lañ see mooy kaab luway ghalib fihr ñoom ci maam yéen safar lañ bokk nee na kooku mooy al imam imam ji al qudwa ki nga xam ne ku nuy rey la cheikhul islam nga xam ni ku mag la ci lislaam ah muy abu abdirahman moo nekkoon taawam al qurashi ci giir quraysh la bokk te xam ngeen ne quraysh mooy giir gi gën ci giir yi comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam al adawi adawi ci giir ak adawi kon dafa bokk ci giir ak Quraysh bokk ci giir ak adawi giir ak adawi ci la Amar ibn al-Khattab bokk di baayam bani Tamim ci la Abubakar bokk summa al makki summa al madani waa Makka la waa Madina la ndax xam ngeen ne baayam ak ay maam ñu ngi dëkkoon Makka jot naa gàddaay ñëw na Madina kon Makka ak Madina yëpp benn bu ci nekk dëkkuwaayam la woon mu ni bi muy tuub xale la woon mu daal di ànd ak baayam gàddaay te booba nee na géntagul majeuragul maanaam nekkagul mu kallaf kon jàpp naa ne ku dugg ci lislaam te matagoo mu kallaf moom bu ñuy limal nit ki ak ceddo yow kenn du la ko limal maanaam naan nit ki fii la jaar ci keddo nii la meloon ko kenn du ko waxal abdullah ibnu amar ndax moom bi muy tuub dugg ci lislaam di gàddaay booba fekk na ah majeur agut nee na keroog oxot yonente bi da koo delloo woon ni ko yow doo mën a dem xare bi ndax dafa nekkoon ku tuuti lool mës a dem xare moo tax xare bi mu njëkk a xare mooy xeexub xandax nee na bokk na ci ña nga xamante ni teewoon nañ bayatu sajara wa ma adrakum ma bayatu sajara mooy keroog fa yonente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam sunu dajeb tay bii képp ku ko fekkee sawara du la lakk allahu akbar laa yaliju nnaara rajulun baayaa taxta sajara sawara moom ku fekkee jotaay bi tey doo doo doo tàbbi Osmaan fekkeewu ko yonent bi daal ne nii gis ngeen sama loxo bi mooy loxo bu Osmaan gis ngeen bii mooy saa bos Osmaan néew fi waaye maa ko yónni kon maa ko jaayanteel loolu moom Osmaan moo ko am mooy fekkeewu ko waaye moom at tey ku jaayante la am ndax yonent bi nee na maa ko jaayanteel ndax maa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne mbokk yi ñun ñun ñun waxuma la waxuma la garantie bi waaye wallaay genn wàllu garantie bi rek buñ ko amoon mbokk yi mu baax fii moom fii ki fi teew du ta du taag xoolal xoolal loolu kun ko waxal mbokk yi ni mu rëyee man di giñ naa ci yàlla li ma gën a yaakaar mooy buñ ma waxaloon genn wàllal loola sax ma commencé bàyyee ndax sa xel day dal waaye ñoom xoolal biñ leen ko waxale dafa mel ni loolu ak yokkute ci wàllu góorgóor la leen dolli radiyallahu anhum wa ardaahum nee na yaayam mooy yaayu Xafsa ñoom ñaar seen yaay Zeynab binti Maz'un la tuddoon Zeynab binti Maz'un mag la wala rak ci Ousmane ibni Maz'un Ousmane ibni Maz'un mbokk mu sës la woon ci yoon sasal moom ngeen gis ci boo demee ci armeel yi bu ñu suulee ba noppi ñu ne wut leen aw xeer wu ñu xàmmee armeel bi yéen ci yàlla bi Ousmane ibni Maz'un faatoo dafa wax saxaaba yi indil leen ma loo xam ni moom laay ràññee sama armeelu mbokk mi benn saxaaba dem di jël aw xeer xeer wi diis moo yonent yonent bi yëkkatil ko boppam teg ko fa tolloog bopp ba te loolu mooy sunna mooy nit buñ ko suulee ba noppi ñu jëkk aw xeer teg ko ci fa tolloog bopp ba mu nekk mandarga bila tablo wala sabaq wala la ca des yooyu yëpp ay mbir la yoo xam muxaalifun li shariati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon Zeynab binti Maz'un mooy yaayu Abdullah ibn Amar mooy yaayu Xabsa ndax Xabsa ak Abdullah ibn Omar Omar amoon na njaboot gu bëree bëri buñ fàttalikoo ci dundu Omar ibn Xattaab ci jeexintal ba waxoon naa ko Omar amoon na ay doom yu bëri sax yu bëri ndax amoon na ay soxna ay gor ak i jaam moo taxit amoon na ay njaboot waaye Abdullah ibn Omar ak Xabsa moom ñoom ñoo bokk ndey ak baay. Abdullah ibn Omar boo demee ci siyar imaamu Zahabi nettali na ci saxaaba yu mag yoo xam ne solo na jëmee ci ñoom ku mel ni Aboubacar Ousmane. Ali baayam Bilal Suhayb Amir ibn Rabia Zayd ibn Thabit ak Zayd di baayam bu ndaw ak Saad ibn Mas'ud ak Ousmane ibn Abi Talha ak ka nga xamante ni moom mooy Hafsa di magam ak mbooloo ma bari moo xam ni kenn ku nekk solo na ci moom amma mbooloo ma solo ci moom ci xadis nag moom parewuma sax pour lim ko ndax bari waay gu mu bari dañoo bari lool sax imaamu zahabi daanaka lu xaw a tolloog ñaari safha lim na ko ci ay boromi xam-xam yoo xam ne solo nañu xadis jëlee ko ci abdullahi ibn omar abdullahi ibn omar mooy nettali nee na uridtu ala rasuli uridtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin wa ana ibnu arba'i ashara sana wala arba'a ashara sana falam yujizni wa uridtu yawma alxandaq wa ana ibnu xamsa ashara sana fa ajaazani mu ni keroog bisab Uhud dañ maa indi ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonent bi boole ma ci soldaar si ñu laaj ma ñaata at nga am ma ni fukki at ak ñeent 14 ans yonent bi ne ko borom 14 ans mënut a dem xare mu ne mu daan may bàyyi te bi mu ko bàyyi dafa mer lool nag dafa mer lool mer bay jooy nag xoolal doo dem xare doo dem xare nga xam ni bu doon mën a moom dafay kontaan ba dootoo mën a taxawati ci kaw suuf si moom dañ ni ko yow doo dem mu mer lool bënn ay bëtam di jooy nee na bi keroog xandax yonent bi laaj ma ñaataan nga am ma ne ko daaw da nga maa delloo woon ren moom fexeel bul ma delloo ñaataan nga am mu ne ko am naa fukki at ak juróom mu ne yonent bi ni ko acca ñëwal nga bokk ci diggante daaw nga ren wax dëgg yàlla sorantewul waaye loolu moo lay wan ndeke yonent sam ku amoon organisation la maanaam mbir mi ay sentiment ki diw nii la toll ak diw nangam yooyu amul solo li am solo mooy dafa am ay principe yu muy doxee yoo xam ni kenn du ko ca jàdduloo sallallahu li annahu rasulun min rabbil alamin abdullah ibn omar mbokk yi ku nanguloon yàlla la akub yonenteem allahu akbar loolu moom ñi gis ci xam-xam yépp a ko xam ku xamoon la mu yiw wu rëy wi nga xam dafa nekk ci jihaad soo ko déggee ñu naan la jaamukatu yàlla amaana li ngay foog mooy amul woon doole wa subhanallah alazim kaana da quwatin fi ljihad ku amoon kattan la ci jihaad aka yey ndax bu ñëwee Amar ibn al-Khattab mooy sa baay doy na te man shaabaha abaahu fa ma zalam arab yi ne nañ ku nuru sa baay wàcc loolu la ñuy wax loolu olof yee koy wax arab yee ko jëkk wax man shaabaha abaahu fa ma zalam ku nuru sa baay moom tooñoo kenn tooñoo kenn mu ni yarkat bi ko njëkk a yar mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom la njëkk a taxool te fekk booba sax majeur a gudd moo tax yonent bi salaa sallam ndeysaan daf leen doon formé donte ay gone lañ di leen jox ay responsabilité bokk na ci yooyu donte demuñu jihaad da leen doon wax yéen xale yi gis ngeen seen bàyyi bu ñu demee jihaad xam ngeen yéen a des ci kër gi ñu ni waaw mu ni kon yéen ay garde njaboot geeg waa dëkk bi jox leen ay responsabilité ah di leen bàyyi xel jigéen ñi jox leen ay responsabilité bu bu bu bu jàkka ji tilimee da ngeen ko defar maanaam ay mbir yoo xamante ne danañ teel a entraîné ngir ëllëg ñu nekk ay jàmbaar ay kóore ci lislaam ci jamonoñ sa salam xare yi dem yëpp yi yëpp dem na ko boole ko jamonoy Abubakar kadalika xeex na xilaafatul al Yarmuk fekkee na ko bi ñuy ubbi Misra fekkee na ko ak yeneen dëkk yoo xamante ni ubbi nañ ko Abdullah ibn Amr ibn al-Khattab bokkoon na ca borom xam-xam yi dañuy wax ni sax jot naa dem Sham jot dem Iraq dem Basra dem Faris muy Perse te benn bu ca nekk bu fa demee rek jihaad la fay wuti ci xadis sax di nga gis benn xadis buy wane ci wàllu wàññi julli Abdullah ibn Omar dem na Azerbaïdjan lu mat six mois yoo xamante ni da doon wàññi julli six mois Azerbaïdjan te fekk la leen fa yóbbu woon mooy jihad fi sabilillah waaye bi mu demee am na fa juróom-benn weer juróom-benn weer yëpp ñaar ñaar lay julli loolu bokk na ci tegtal yi ñuy sukkandiku di wane ni kon wàññum julli amut àpp comme ni ko ñenn ñuy waxee naan bu passé ñetti fan rek nangam déedéet foofu nag am nay détail nag te nit ki bu fekkee dafa dem lii ko fa yóbbu nga xam ne kañ lay tourné yu demee noonu waaye ajuwul ci ay kilomètres ajuwul ci nombre de jours yu mu fay am te loolu moom mooy li gën a wér ànd taxqiir xirsuhu ala itibaa alxabibi sallallahu alayhi wa sallam naka la abdullah ibnu amar xiree woon mbokk yi ci di toppandoo yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqad kaana min asad ashad annaas xirsan ala itibaa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi sakanaatihi wa xarakaatihi wa kalimaatihi bal fi kulli shay danañ toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak dalam ak yëngatoom buy wax day toppandoo yonent sa salam buy dox dafay toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal kon Aïcha moo yey ni gisuma koo xam ni ci sax sa mbir ma yonent bi nekkoon mel na ci ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bal sax nag ci mbiram yépp ni mu xëree woon ci sunna moom daanaka moom muttafaqun alayhi bariwaana luñ koy nettali yonent bi fàqoon na ci garab gi socc dafay fàq socc julli woon na fa dafay julli nu mu turati bi mu yegsee fii def na nangam da ko fay def yonent bi bu daan fuddan sikki moom sax nii la koy fuddane mu defee noona lépp da ko doon royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toxal lañ jëlee ci Malik mu nit mu ni nit li mu ni Abdullah ibn Omar doona topp yonent sa sallam ak ay ay jeexintalam ak axwaalam mu ni bal sax mbir mi dafa yeggoon koo xam ni am na ñoo xam ne dañ doon jàpp ni sax kii moom xel mi daa am lu ci nekk fekk dara newu ci waaye toppandoo yoon sa salam naafia nee na law nazarta ila bni omar ida ttabaca rasul allahi sala allahu alayhi wa sallam la qulta hada majnun nee na boo toppoon ci ginnaaw omar ibn abdullah ibn omar nga gis ko ni muy toppandoo yonent bi sal allahu alayhi wa sallam mu ni li ngay wax mooy da ngay naan waaji dafa dof te xam ngeen ne naafia naafia xam na moos kuy abdullah ibn omar ndax Naafi' bëkk néeg la woon bu jegeel mu lu mool Abdullah ibn Omar Naafi' dafa jege woon Abdullah ibn Omar lool bal yu bare bare bari ci ay secret yoo xam ay jaamu yàlla yu demee noonu Naafi' xamoon na ko ci Abdullah ibn Omar te loolu waxoon naa ci dars yi passé borom xam-xam yu njëkk yi dañ ko doon am moo tax yenn seen yi ñu doon nëbbu di feeñ ginnaaw buñ faatoo Naafi' nee na Abdullah ibn Omar doon da toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barab bu ne ba benn bis sax nee na dafa mas a wàcc ci benn barab am benn waay bu ne ko gis nga garab gii gu ndaw gii ñu ne ko waaw mu ne yonent bi mas naa tukki ba romb ko mu wàcc fi julli ñaar raak Abdullah ibn Omar wàcc julli fa ñaar raak waaye yemu ci mu jël ndox di roose garab bi ndax nee na maa ngi bañ garab bi gaawaw waaw donte yooyu nag xëy na ñu bare bare bari ci la ñuy sukkandiku nag di toppandoo loolu ci buñ ne sëñ diw moom julli woon na fii nga bëgg faa julli nangam déedéet bu leen fàtte ni dafa am yu nuy royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne bokkuliw ko kenn lu mel ni ak tabarruku bi aathaar yi barkeelu ci ay jeexintal loolu yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam hatta wala siddiqul akbar même Aboubacar kenn du ko ko defal kon yooyu di barkeelu ci aataar yi ñu ngi koy defal ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese xëy na moo dugal Abdullah ibn Amar ci buntu boobu donte am na ci yoo xam ne sax ñenn ci magi saxaaba yi dañ ko ci doon yedd Abdullah ibn Amar nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law tarakna hada albaaba linnisa قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات yenent bi dafa jékki-jékki am yàgg xam ngeen comme jàkka ju mel ni sunu jàkka ji rek ñu gis ni buntu bi buntu la fii buntu la fee buntu la yenent bi gis léeg-léeg bu julli jotee dayam ñuy sa mbaxloo fii jaar fii ñu sa mbaxloo jaar fii góor ñi jaar fii jigéen ñi jaar fii ñu àndandoo xam nga wax dëgg yàlla ki jóge fële doone ko buntu bi jigéen ñee fii jaar bu fi jaarati man naam kon wiiri metti ci moom waaye yonent bi ko rafetoon lu muy jàngale la sallallahu alayhi wa sallam dafa xool sa mbax loogam yàgg mu ne cey buntu bii buñ ko bàyyi woon ak jigéen ñi dana baax lool daan jàpp mor sa njàmburam naafia nee na ba bis bi abdullah ibnu amar faatoo maa ngi fàttaliku buntu boobu jaarab si même bu ñëwee ba jub ko day wiiri ndax rek yonent bi xool waxul de law bu ay ay bu ay bu doon te des ngeen nàngam xam nga ko ki waxee noonu maanaam la muy wane mooy forcé wala ci li lay def loo bu fekkoon da ngay personnel def leen nangam wala bàyyi leen nangam waaye dañu cay buñ bàyyi woon buntu bi ngir jigéen ñi mu ne abdullah ibn omar moom bari ñim paatoo buntu boobu nangootu faa dugg mu ni saabu dee ba jub ko sax fàtte ko day wiiri mu jaari ci beneen buntu radiallahu anhu wa arda asim ibni muhammad al amri nee na musumaa dégg abdullah ibn omar wala li ëpp ci li ma koy dégg ndaysaan bu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul dafay jooy foofu nuroo na faak abu hurayrata allahu akbar ah bi maana gis ngeen abi hurayra ay yoon yoo xam ni ay xalaqaati xam-xamam du am allahu akbar loolu la muy fàttaliku lu rëy lay doon te wax dëgg yàlla xam nga yow mu toll fam toll la mbir mi di jaaxal waaye ñoom mbir mi du leen jaaxal ku xam ñoom ñooy ñeneen du la jaaxal mbokk yi ku xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ko suñu borom may ak ni mel laa biir géeg mbaax gi tabe géeg yaa gi ngëm yàlla jeeg ragal ko ak mën a jëflanteeg nit ñi nekk rasulu rabbil alamin nag wàcce boppam ba nan innama ana basaru mislukum di jëflanteeg saxaaba yi benn xeeti jëflante bu rafet ca nooy ca baax sikk nekku ci ne lii mbokk yi ku ko ñàkk ca marqué wu la doo nit leneen nga yow waaye doo nit maa amatoo yëg-yëg moo tax ñoom biñ ko ñàkkee léeg-léeg saab loolu day dal sax nit xam nga nit am na nit ñooy nooy mel ak nit mu faatu buñ ko tuddee mbaa ñu tudd histoire am rek day daal day daal di jaxase loolu seen seen fol nit yow ak nit rek la lay dal léeg-léeg nit dina nekk ak soxnaam wala mu nekk ak borom këram wala doomam wala xaritam ila axiri ma tazkur mu faatu gis nga bis bu ñu koy tudd ba waxal ko ay wax yenn ci wax yi nga xamante ni xëy na yooyu day yëngal sentiment rek su boobaa ndeysaan da ngay daal di gis nit ki daal di bënn ay bëtam di jooy fa kayfa ka bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yiñ ko ràññeetlee mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawu ci yokk xarab daaw ko ci wàññi abu jaafar albaqir nee na kaana ibnu umar ida samica min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xadisan la yazidu wala yanqus wa lam yakun axadun fi dalika mithlahu saa bu déggee benn xadis ci yonente sallam du ca yokk du ca wàññi waaye amul kenn ku mel ni moom ci loolu ci mën a yamal fa yonente bi yam sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibnu umar wa xubbuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Omar ak ni mu bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom daanaka moom fawqa al wasfi kama yuqaal xaw tuuti kon rek ñu ne daanaka moom ëpp na ëpp na nu mën koo melal ndax yii ma jot a wax rek firnde la ci wane bëgg gum bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis Abdullah ibn Omar dafa dem ca Safa ak Marwa ci jamonoy aj mu naan yow sunu borom allahumma ja'alni mimman yuhibbuk yow de sunu borom maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi lay bëgg wa yuhibbu malaikatak yàlla nag ma boole ci ñuy bëgg sa malaaka yi wa yuhibbu rusulak yàlla nag ma boole ci ñuy bëgg say yonent wa yuhibbu ibadaka as-salihin yàlla nag ma boole ci ñi nga xam dañuy bëgg sa jaam yu baax yi allahuma xabib nii yàlla ba noppee maa ngi lay ñaan nga bëgg ma xabib nii ilayka yàlla nag ma bëgg wa ila malaikatika yàlla na nga def malaaka yi bëgg ma wa ila rusulik yàlla na nga def yonent yi bëgg ma wa ila ibadika salihin yàlla na nga def jaami suñu borom yu baax yi bëgg ma allahu akbar loolu dem nañ yaakaar ci ni ñaan la gu nangu ndax abdullah ibnu omar bari waa nañu ko mat bàyyi bal sax faw xa bàyyi maam tey dañ ko doon ñee waaye dañ koo bëggoon loolu dafay niroog li benn borom xam-xam di wax ci wàllu bëgg ndax xam ngeen bëgg ci boppam lu foor la nag moo tax yonent yàlla bi saa sallam ne bam ne ban ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaxira moom mbir mi nu muy demee mu ni al mar'u ma man ahab nit ki daal kam bëgg rek alaxira moom lay àndal waaye nag yow muy woote wa bëgg yonent sa est-ce que sa bëgg-bëgg gën a gula waa ji mu ni aruuxu wa qad xatamtu ala fuaadi bi xubbika an yaxilla bi siwaaka falaw anni istataatu gadattu tarfi فلم أنظر به حتى أراك أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا أو حراكا وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك إذا استبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من يبكي فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى waaje muy wax ci wàllu bëgg mu ni man de maa ngi xëy ak a gont waaye sama xol bi fees na del ba ñu tàppe ko ci bëgg goo xamante ni daf la koo bëgg yow sunu borom bal sax nag xalaatuma sax naan damay bëggaat keneen ah mu ni su fekkoon man naa bëgg gi ma la bëgg day yegg koo xam ni sama bët yi dama koy gëmm ngir bëggatumaa xool kenn lu dul dama laa xool yow sunu borom kon ci àddina jarut ma fi xool bu ma la gisee rek ma xam ni doy na du lenn ci man moo la bëgg ñu naa xol bee la bëgg wala tànk yi wala loxo yi déedéet du lenn ci man moo la bëgg waaye léppi man moo la bëgg bal amut luy des ci sama yaram yi luy yëngatu lu dul bëgg na la mu ne kenn ku ci nekk nag mi ngi jéem a woote wanaan bëgg na yàlla bëgg na yàlla waaye nag bëgg googu kenn reconnaître ko parce que mbir mi dafa sin sincère ci yow dëgguwut nee na gis nga saa bu ñu demee ba ay rangooñ di waddandoo ci ay let ah su boobaa mën ngaa rànjetle kii jooy ak kii jooy jooylu ñu ne ko noo koy rànjetle mu ni ki nga xamante ni day jooy dëgg rangooñ yu tàng jër lay génne te day feeñ ci mboolem ay jëm jëmmam ci kanam gaag bët yaag lépp day feeñ ci moom nga xam ni kii jooyantuwut waaye nag mu ni kii jooyantu boo ko xoolee rek muy dafay feeñ ci xar kanamam nga xam ni kii kat moom li muy jooy ñoru ko fullaalu ko mu ni bëgg gu mel nii nag moom lay tëkkale bëgg gu Abdullah ibn Umar ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ruya taj'alu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yashhadu bi salahihi radiyallahu anhu ak gént goo xam ni ca la yonent bi nag seedeelee ni Abdullah ibn Umar ku baax la mbokk yi gis nga xëy di tampon yii nag moo jar doomu aadama daw ba toskare ah ñun moom da nga am certificat am defem bac licence maîtrise doctorat bu ko defee nag jàpp ne tàbbi nga àjjana ci suñ mbiri àddina yi waaye saxaaba yi ñoom xëccante wuñu woon yooyu déedéet ambassadeur de nangam ak moo jiite lii ak moo jiite la la yooyu yitteelu leen woon waaye leen yitteel mooy am ngërëmal yàlla ak bu yonenteem bal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel la ak mbaax te doy na sëkk yonente bi ni ah Abdullah ibn Umar de ku baax la Abdullah ibn Umar nee na benn bis mu ni ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon def ku tëdd ba guddi nga gént dara wala bëccëg da ngay ñëw nettali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen yonente bi danañ julli fajar ba na boolu ba ti ko jàkkaarloo ak mbooloo mi ni leen waaw est-ce que am na ci yéen ku gént gént démb bi ab gént su kenn géntut mu jug dem bu amee ku gént ni ko man kat gént naa nangam yonent bi firil ku gént gi ah benn bis benn waaye day xëy nit li loo gént bu kéemaane tey xam ngeen gént gént nag ci kéemtaani suñu borom rawatina ci suñu jamono ji ñu toll yent yàlla bi nee na yàlla di yónni ab nit dëkk ko yonent moom nubuwa jeex na waaye nag li may li fi des mooy almubashirat mooy yi sunu borom di bégalee ku gëm yàlla di ko wan ci gént am na yoo xamante nag du gént géntantu de gis nga am na ci nit ñi ñoo xam ni ñun ñoo leen di umpale waaye ñoom dinañ xam seen bopp sunu borom baaxee na leen li ëpp ci li ñuy gént dëgg lay doon benn ngo ñaareel bi mooy sunu borom daf leen di wan jahratan ci nelaw am na ñoo xam ni ñi ngay gisee làmp bii wir ni làmp la sunu borom mën na leen ko wan ci nelaw loolu nag du yonent du nubuwa du xam kumpa du lenn loolu yonent li may wax ni yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam albashirat mën ngaa tëdd ba guddi sunu borom am lu mu la wan nga gis ko gént ko loolu ñun ñii ñëpp xam nañ ko ak gis nga ay benn benn nit yoo xam ne daanaka lu mu gént rek buñ xëyee gis ko loolu day faral di am waaye nag gën jaa wóor nag mi ngi aju ci dëggu nit ki ak sellalam waxu dëggam jaamu yàllaam loolu da koy gën a yombalal mbir mi abdullah ibn omar nee na benn bis nag nee na maa ngi mbébét naan waay man de saa buñ fajar rek gars yi dañuy nettali gént man waaye yàlla na ma yàlla dimbali ma am benn gént bu ma gént man sax man ni ñëw nettali ko bu ko defee yent bi firil ma ko nee na ha ma tëdd ci jàkka ji benn bis rek gént benn gént bu kéemaane nag xam ngeen booba célibataire la woon amagul soxna bàyyam ko waxoon naa leen ko bari woon njaboot la léeg-léeg kër gi xat mu ne xaaral ma dem jàkka ja fanaan fa Abdoulaye ibn Omar nee na damaa tëdd ci jàkka ji di nelaw nee na ma jekki-jekki rek gis ñaari malaaka ñëw ba toog ci sama pegg ni ma nii kii ni nikk sama mbagg mi kenn nikk ci ma neen mbagg mi ñu départ ak man ni ma kaay safara lañ la jëmee Abdoulaye ibn Omar mooy nettali de gis nga gént gi bi mu yeewoo ñi mu koo nettali xam nga wala wax naan yàlla na am benn gént su ma xëyee ma ñëw nettali ko yent saa sala waaye bi mu yeewoo ñi mu koo nettali nag dafa rajo nag dafa dem ci Hafsa Hafsa lanam la magam nekk soxna yent saa sala mu ñëw ci Hafsa nettali ko Hafsa ko jàppale yent ne bu doon Abdullah ibn Umar kese du ko wax mu ni ñaari malaaka jàpp sama mbagg yi ni ma ayoo kaay safara leen jëm nee na may wiñaaroo ko yuuxoo ko bi tarñiku lu ne ma def ko waaye ñuy dem ak man rek nee na ñu ñëw ba tiim safara safara ngi mel ni ab teen gis ngeen teen gis ngeen teen bi ci biti ni mu mel gis ngeen weñ gi teg ci kaw nga xam bu njëkk bant la doon doon nee na affaire bi noonu la mel maanaam mi ngi mel ni am pax ab teen ñu samp ay bant yu ko tiim ah nee na bi loolu amee ma yurlu ci safara ma séen fa ñu yuuxu ñoo xam ne xam naa leen allahu akbar gént gi dafa rajul de mbokk yi mu ne mu séen ci biir safara ay nit yoo xam ne ña nga ca biir safara ay lakk di yuuxu mu ne xam naa leen ay nit lañ xam naa leen diw ak diw ak diw ak diw la ñu ngi ci biir safara si di lakk nee na foofu nag ma daal di gën a salleeruwaat xam ngeen salleeru yuuxu yuuxu yu metti rek nee na benn malaaka daal di ñëw mu ne bi ma yuuxoo maa ngi wax audu billahi min an naar yàlla na ma yàlla musal ci safara nee na bi may wax loolu rek benn malaaka ñëw rek ñi ma cas daal di ma bul tiit ba ma xaw a fële nga daal di mucc nee na bi ma ba ma xëyee ba ma daanu fële rek ma mucc rek ci laa yeewu loolu moom jàpp naa ne ku ko géntoon ku nekk boo yeewoo doo mën a liggéey moom doo mën a liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Hafsa daal di ko koy nettali rek mu daal di muuñ daal di nopp firiwu ko de dani ni'ma rajulu abdullah law kaana yaqumu min al-layl sey abdullah moom daal moo kéemaane rek moom daal nit yàlla la ko baax la waaye sey bu ci boole woon julli guddi loolu mooy firi gént gi ba léegi waxu dara gis nga de gént mbokk yi wax naa leen ni gént ci sunna boo koy nettali bul ko nettali kul sa soppe wala nga nettali ko ab borom xam-xam bu firi gént mën a firi gént te moytul gént lu bon di ko nettali gént ci tànk tànku picc la nekk buñ koy firi rek mu wadd xam nga picc moom tànk bi nii la def xam nga cari cari nii lañ ko keppee ci tànku picc loolu lañ ko yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam boo ko firee rek mu wadd yow boo dikkee ku mënta firi gént firi la ko firi boo xamee surtout léegi nag ah am na gaa yoo xam ne moom ci rajo bi la ñuy toog yéeg seen coup de téléphone nangam nangam ñu ne loolu ay wax lu yu amul loolu ñuy wax laa tusaddiq bihi harfan wahid wala kalima dara du ci dëgg firim gént du noonu firim gént moo gën a jafe sax xam-xam ndax mawhiba la du lu ci jug naan dama koy jàngi naan firim gént Muhammad ibn Sirin nag firim gént nangam den yooyu loolu mooy lan loolu amul de du caage ni koo gisit muy borom xam-xam mën naa firi gént déedéet waaye nag borom xam-xam man ngaa ñëw nga gént gént gu métti mu def li ñu tuddee tafaul mooy gàtt nga la daal lay waxal loo xamante ni xëy na lu baax la même bu firiwut loola bu dee ko ragal yàlla nag bu mënta firi danaan la moom xaw ma lu muy tekki am na ñoo xam ne suñu borom baaxee na leen nag nga mën nañoo firi gént waaye yonent ba léegi firiwu ko de ba léegi firiwu te gént yu mel ni danaan am lu bare bare bare ci jamonoy saxaaba ya nga xam ne gént gu garaaw ah damaa gént dugg fii génn fii wax ay wax yonent bi ne yow da ngay soxi te effectivement na nga ko géntee noonu lay amee ak yeneen ak yeneen damaa man moom yonent bi sax da doon gént di nettali damaa gént ab baaj jóge ca asamaan sa wàcc diis gën def soow ñu jox ma ko man naan ba mandi dal di yëkkati desit wi jox ko Amar ibn al-Khattab ñu ne yonent bi ah loolu mooy lan mu ne loolu de mooy ak dëgër ci diine moo tax Amar ibn al-Khattab mel ni mel mu ne loolu li muy teg mooy ak dëgër ci diine Usmaan ibn Affaan gisoon ngeen ci dundam tëdd na ba guddi kon biig ci guddi donte biig ci guddi nag du ay wolof ñun dañ koy faral di wax maanaam wolof day bañ biig ci guddi xam ñun dañuy faral di wax loolu maa ngi nii sax juum ba wax ko biig ci guddi ndaxte ñeema yóbbaale biig ci guddi kenn du ko wax loolu du wolof maanaam biig moom boo ko waxee rek guddi la taxsilul xaasil la biig doy na Amérique Usmaan ibn Affaan tëdd ba guddi gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah yow mii day da ngay faat te dan lay rey ci suba lan lay rey bu la neexee nag nga ñëw ndogoo ci ñun moo tax bi mu xëyee dafa woor ci bis boobu mu woor ci lañ ko faat radiyallahu anhu wa arda gis nga kon yu mel noonu yonent bi da doon firi ay gént te xam ngeen ni kuy firi gént moo la dàq firi gént defe naa ci qissatu Yuusuf gisoon ngeen njàngale yu am solo yi ñu ci doon leeral dëppoo gi yéen tasam dëppoo gi Yuusuf ci mën a firi gént gis ngeen Yuusuf moom rabbi qad allamta rabbi qad aatani min al mulki wa allamtani min ta'wil ahadis gis nga xam-xam la bu yàllay xamle yaa ma xamal yow sunu borom firim gént kon du mbir mu ñu dem ci ay université ak ay sëriñ ay nangam di ko jàng déedéet kon Abdullah ibn Omar nee na maa ngi seen affaire baa ngi mel lu am ay béjjën muy ñaari bant yi ñuy teg ma yërndu seen ay nit nee na bi mu yuuxoo fitar ñi ko rek ndeysaan ci la ko benn malaaka ñu cas daal di koy sànni ni ko du bul tiit mucc nga bi mu ko nettali yent yent bi ni ko ni'ma rajulu abdullah kooku de ko baax la law kaana yaqum min al salim doomu abdullah ibnu amar mooy nettali nee na sama baay day keroog bi ko yonent bi waxee loolu ba ni mu faatoo ab jullikatu guddi la woon allahu akbar noonu nag gis ngeen niñ ci sàggane da ngay gis nit góorgóorlu ci julli guddi ndeysaan ab diir rek seytaane daal di koy dikkal nga xam ni loolu ñun ñëpp lay gaar waaye Salim Salim ibni Abdullah ibni Omar moom it ku bàyyam fonkoon la comme ni Omar fonkee woon doomam Abdullah ibni Omar gars yi dañ doon wax naan Abdullah ibni Omar day gënale ay doomam ah xam nga loolu lañ doon wax naan Abdullah ibni Omar ah day gënale ay doomam ndax Salim moom la gën a fonk mu ni hey hey maa ko def li ngeen wax maa ko def gënale gi nag nekkul gënale goo xamante ni li yonent bi tere lay def maam da leen a bëgg a saxal ni li tax ma def li ma def lii la waaye tekkiwul day jox saalim bañ a jox ñeneen ndax islam day tere loolu mu ne yalumuuna ni fii saalimin wa alumakum wa jildatin bayna al ayni wal anfi saalimu mu ne nit ñaa ngi may yedd naa ma da nga ëppal ci saalim ni nga fonke sabab ci saalim mu ne hey li ngeen wax maa ko def bu dee loolu ngeen bëgg a dégg maa ko def mu ne sama der bi ne sama diggante bakkan bi ak bët yi mooy saalim boobu mu jeex maanaam loolu tekkiwul da doon wane dafay gën a ne déedéet ah chaque Abdoulaye ibn Omar sori na loolu waaye la muy wane mooy ku ko fonk laa bokk fii laa ko teg sama bët yi lan moo tax ndax Salim dafa meloon ni baayam ci roy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi yu mel nii ay xeeti yëf yëfaan la yoo xamante ni seede lay jural yonente salaam mu ni ah ni'ma rajulu Abdullah am beneen riwaaya mu ni innahu Abdullahi rajulun salih wala inna Abdullahi rajulun salih daal di noppi Abdoulaye day waa ju baax la gént ga fireeku na jeex na sànq balaa may def dars maa ngi am benn vidéo bu ma benn mbokk jox yàgg naa koo dégg sax maa ngi koy suivre xista ba ca nekk dafa nuróog lii te xista ba ca nekk kat waaqia la ab borom xam-xam moo ko doon nettali dafa nuróog lii ci jamono bi ñuy dund pour nga xam ne gént moo kéntaani benn borom xam-xam mooy nettali mu ni benn docteur moo nettali benn borom xam-xam xissa bi bu ko defee mu doog koy nettali xissa bi lan la benn waa joo xam ne dañ ko entré hôpital li may wax nii lu am la ci jamono bi ñu toll ab borom xam moo ko def ci benn chaîne télévision mu ni waa ji dafa entré hôpital gis nga li ko tàmbalee ci tànk yi ba ci ndigg li lépp moom dafa mokk rumbux tasaaroo maanaam mu ngi mel ni ko accidenté ba yaram yi tas tas mokk rumbux melokaan wi mu mel mu ni melokaan la woo xam ne boo ko tiimee rek da ngay jooy yaram bi daanaka yëpp yàqu na sax sa yeboo nga wax nee na ñii ñëw ci biir hôpital bi di ko seet si kuy ñëw da ngay jooy yërëmtalu nangam waaye boo duggee bay génn dañ lay gis ngay muuñ ak a reetaan mu ne affaire bi jaaxal leen lan moo tax kii ku koy seet si ngay jooy tiis ndax affaire bi boo ko déggee rek bala nga koo gis rek day metti te boo ko seetee ba génn mu ne am na ñoo xam ni bi ñuy génn sax seen reetaan dafa ëpp ba dañuy jël seen mbubb def ko nii xam nga nit bu jëlee gémmiñam tas nii rek mooy may ni bëggatul reetaan gi jëm kaw mu ne am na ñoo xam ne bu ñuy génn dañuy reetaan bay jël seen yëf yi di ko tas fii te boo doon dugg yaa ngi jooy nee na médecin bi daal di ñëw daal di koy laaj ne ko waaw sa waay yow lu xew nit ñi bu ñuy dugg si dañuy jooy jaaxle te bu fekkente ni dañoo dañoo génn dañuy reetaan lu xew mu ne ko loo bëgg a xam mu ne ko sabab si mu ne ko ida urifa sabab batal al ajab waa ji mu ni xam nga loolu benn proverbe la boo xam arab yooyu koy wax ida urifa sabab batal al ajab tey jii su ma yoroon benn affaire fii di ko wëndeel ci kaw jaww jën dara laalu lu ngeen def da ngeen di yéemu waaye su ngeen xamee ni ma def ba def ko kay dootu leen yéemooti moo tax arab yi ni ida urifa sabab saa bu ñu xamee sabab bi rek batal al ajab kéemtaan nga yàqu mu ne ko loolu nga bëgg a xam mu ni moom daa tëdd ba guddi ci néegam deuxième étage maam lii ak gént la waaye gént gu am la mooy deuxième étage nee na bi mu tëddee ba guddi mu gént ñu dugg ci benn kaar ñuy daw ba mu yàgg ñu def benn tableau ci seen kanam ni leen cent kilomètres moo tee ngeen dugg àjjana ah mu ni ñu doxaat tuuti quatre-vingt-dix kilomètres quatre-vingts soixante dix soixante cinquante ba ak si dix kilomètres moo tee ngeen tàbbi àjjana muy dix kilomètres yi jeex rek ñu ne paccax biir àjjana dugg mu ne bi ñu duggee àjjana maa ngi gis bir yi or yi ñu doon waxal fauteuil yu nooy yeeg kirwi yeeg mu ni ñu ngi dagg di ñu jox affaire baa ngi neex ci génn ci ba melokaan bi ma doon jàng ci alquran yëpp mu ni maa ngi koy dund fi ne ci biir àjjana ji nee na ñu toog fauteuil ñu ne ñu aca génn leen ah loolu moom day yàq xéewal kat mu ni ñu toog tuuti ci àjjana ji ñu génn leen mu ni ñu daal di génn duggaat ci kaar bi mu ni kaar bi départ di daw mu daw tuuti rek ñu def benn cent kilomètres ni moo des ngeen tàbbi safara waa ji mooy nettali de mu ni quatre vingt dix quatre vingt soixante soixante ba mu yàgg dix kilomètres te jaabi safara rek mu ni ñun mu ni bi ñu xamee ni nag dix kilomètres yi ñu àgg sawara nag mu ni ñun ñi kaa bi yëpp jugandoo na mu ni bi ñu jugee ñii di wax safoor bi jàddal fii ñii naan defal nii defal mu ni daal foofu tàbbi safara moom du am moom léegi kenn ku nekk li wolof naan nu golo xam ne boo roggantee doomam mu ni kenn ku ci nekk mu ni ñii ubbi bunt bi am wàcc ñii nangam mu ni man ma ne xaaral ma jaar ci fenêtre oto bi cëppeelu mu ni bërit ci nelaw yi fekk mi ngi nelaw de mu ni bërit ci nelaw yi rek sëppeelu ci balcon bi maanaam pour moom mi ngi ci gént bi allahu mustaan loolu kii ma sëgg la mbokk yi moom pour moom mi ngi ci biir gént bi mi ngi pour moom affaire bi dëgg la moom mi ngi gént waaye moom gént bi dëgg la léegi comme day def ci fenêtre bi léegi mu daal di ñëw ci wetu balcon bi fenêtre bi nekk foofu rek comme fenêtre bi fenêtre oto bi comme benn rek mu sëppeelu ci fenêtre nee na bi mu sëppeeloo ndeke moom ci gént gi bi mu waa moom xamul sax ba daan xam nga loolu da ngay xam ñu jagati yóbbu hôpital fekk yaram bi yëpp mokk na rumbox mu nettali ni gént gi noonu la waa lan la nit ñi ree mu ni moom bu leen nettalee gént gi ba noppi ni leen maa ngi sant yàlla mi nga xam ni musal na ma ba jotuma tàbbi safara sama tànk yi damm mu ni moomu gënal la ma fa ma naroon fa kaar ba naroon a dugg xoolal xoolal yu mel noonu te lii waaqee la lu am la maanaam mbir nekkul ay ay nit ki doon gént waa ji moo tëdd hôpital toog di ko nettali nekkul ak gént kese waaye gént la gu far soppali wala finance gént gu far soppali ku nekk dëgg gis nga man man bi ma seetaanee xisa ba daw ne ko bëgg ba ma wax sama xel ma ni waaye ba nga duggee àjjana ba noppi nga war a yeewu nag yow yemale ko foofu xam nga nga gis nit di di di di gént di seetu maa gént nangam boo yeewoo mere ñëpp mën ngaa waa ji mën naa yeewu naqari bi rek ku wax ak moom rek mu jànne la fekk la doon gént xam naa moo neex rek gis nga kon yu mel noonu xëy na insha allah ñu ngi am rafet njort yal na yàlla musal ko ci safara musal na ci ñu nit ndax wax dëgg yàlla gént gi kéemaan dëgg la kon loolu xool ko ak ni mu nuroo qissa bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala musal na ko moom it moom it malaaka yi daal di koy bicc mu daal dem moo tax yonent bi ni inna abdallah rajulun salih moom de waaju baax la beneen bi mu ni ibadatuhu radiallahu anhu jaamu yàlla yim doon jaamu sun borom moom abdullah ibn omar jàpp naa ne nag foofu moom buñ ci yegsee mooy al qalb mooy xol bi nag ndax jàpp na ne Abdullah ibn Omar bu ñu koy wax jaamu yàlla moo taxoon ñuy wax benn bis gars yi dañ ne naafia waaw Abdullah ibn Omar lu mu doon jaamoo yàlla ci biir këram mu ne jërut ma koy wax ndax su ma ko waxee du ngeen ko man allahu akbar mu ne jërut ma koy wax ndax su ma ko waxee sax du ngeen ko man saa boo tojee nga jàpp fun la fekk yaa ngi alquran di jàng mën ngeen koo waay gars yi déedéet mu ne jeexal Abdullah ibn Omar fu mu tojee ma ngay jàpp foo ko fekk mu ngi ci alquran day jàng ndaw bari ci yaaba alquran mooy wutukaay ci bi gën a rëy bal sax nag dafa amoon jaamukaay yàlla buñ ko xamee boo xam ni mbalka muy def ndox moo xam fa lay laabee nee na bu tëddee ba nga naan sa waay ma ngay jàppantee ki nelaw rek mu ni bëreet jóg nee na ñeenti yoon wala juróom dana ko def ci guddi julligee ba noppi tëdd tuuti ba nga naan ma ngi jàppantee ki nelaw mu jóg jàpp kabaar dem ba mu yàgg mu tëddaat loolu moom daanaka ah du ma wax kenn defatu ko de waaye day illa man rahima rabbu mi ngi am nag ba tey mi ngi am nag ba tey tey gis nga jëmmi am googu muy am mbokk yi mooy tax nga xam ni ndekete kéemtaanu sunu borom la ñaara ngi ñoo xam ni kenn ku ci nekk wallahi yéem na ma trop yéem na ma lool ci ñiy dundal ñu xam leen nga xam ni ndekete gis nga loo tële rek góorgóorlu nga ñaan yàlla gaaw faju kenn ki jigéen la kenn ki góor la ki nekk jigéen ku bokk ak moom jege ko lool moo ma ko nettali ki nekk góor moom maa ko xam man maa ko xam maa ko xamal sama bopp koo xam ni julli guddi rek laa ko xamee nag moom sax laa ko xamee nag fas bopp kese man moom saraxatan mënu ma la man maa ngi koy ñaan suñu borom waaye mënu ma ko julli guddi rek laa ko xamal nag rek maanaam xamaluma ko leneen lu dul julli guddi maanaam nelaw guddi xamaluma ko ko julli guddi laa ko xamal man xam nga loolu moom fan la cee nag ma nga yem keneen ku jigéen kiit nag allahu akbar damay bañ la la mbokkam ma wax su ma ko waxee xam naa day feeñ day am ñu koy xam moo tax ma di ko bàyyi may bàyyi noonu te xam nga nit ñi léeg-léeg seen jaamu yàlla ñu bëgg mu feeñ l'essentiel la mbokkam ma wax moom su ma ko waxoon jàpp naa ne mën naa feeñ ci mbooloo bi waa mi ngi noonu daal ala kullin ba léegi loolu dama koy saxal ngir ñu xam ne ba léegi mi ngi am nit ñaa ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla yooyu léegi lañ des mooy nit ki jéem a tàggatu ñaan boromam yàlla suñu borom defal ñu tawfiq ci yombalal ñu loolu naafia nee na ibnu omar saa bu musul tukki rek mi ngi woor bal day dem ba ku ko xam ci kër gi da nga naan kii moom xanaa foo ko fekk day woor naafia nee na soo abdullah ibnu omar nekkee ci ay yitte ba tardé gee day mere ba moom ba guddi googu du nangoo tëdd allahu akbar te xam nga luy tardé gee mooy tardé jàkka ja de waxuma bañ koo julli de waxuma bañ koo julli de tardé jàkka ja laa su ko Abdullah ibn Omar defee nee na guddi googu day jéppi fa moom ba du nangoo sëdd naafi nee na da daan fanaanee julli moom Abdullah ibn Omar bu fajar gi jotee mu ne ko asaxar naa njël jot naa nee na xam nga comme yoruñu ay montre ak yooyu mu ni ma daal di génn su ma génnee xool ni ko dee njël jotagul de mu continuer ak julleem boo toogee bi yàgg ma ne ko asaxar naa ndax njël jot na ma génn ni ko waaw njël jot na nee na mu daal di ferankulaay nag commencé di jéggalu yàlla allahu akbar wa bil asxaari hum yastaxfiruun loolu la aaya jooy tekki kon abdullah ibni omar noonu la meloon ci jaamu yàlla li waral baayam bëggoon ko fonk ko mooy nii mu mel moom abdullah ibni omar ibn alxataab radiallahu anhu wa arda abdullah ibni omar mbokk yi bari waana moos loo xam ne aaya yi daf ko doon tarjiit borom xam-xam bi Mahmoud al Masri di ko tegtala ndax aaya yi da koo bàyyi woon xel mooy sunu borom li muy wax ni wa kullu insanin alzamnaahu tairahu fi unuqi amul benn doomu aadama rek lu dul sunu borom jël na say jëf rek ndeysaan lonkal la ko ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا sunu borom mu ni alaxira ñu daal di génne ko def ko ay dossier ay dossier ay dossier la ñu def ko benn dossier jox la ko te naan la اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا جنجل ستيري جف tey jarut ngay soxla ay nit yu bari pour ñu lay àtte doy nga sa bopp àttekat na xam nga li nga def loolu ñun ñëpp danañu gaar mbokk من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا sunu borom ne kon képp ku gindeeku rek sa bopp nga ko def ngay gindeeku ku sànq sa kaw lay këpp kenn nag du ñëw àllaaxira di yeenu bàkkaari moromam du ma mbugal wenn xeet lu dul damaa yebal ab yonente bu leen waar ba noppi jeneen aaya ji mooy waxi sunu borom fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun sunu borom ni bu àllaaxira taxawee benn askan dootut compte diw diw ci fami sàngam la bokk diw diway baayam diway maamam sunu borom ni loolu jeex na bi nga faatoo فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون sunu borom ni képp koo xam ne dañoo peese ay jëfam balance su tiyaabaam diis gan balance su bàkkaaram waye tol sunu borom ni yow sa affaire baax na yow texe nga ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون sunu borom ni kuñ peete say jëf sa balaasi bàkkaar dis gën sa balaasi yiw waaye tol sunu borom ni yàqule nga xasiru anfusahum yow yàqu nga yaxeet li wolof na yàqu nga yaxeet xasiru ba anfusahum xam nga perte na la waaye perte nga ba perte sa bopp dara gën ta metti ñu saisir la nangu li nga am ci alal lépp wëlbati tëj kaso maanaam dañ laa daal jël liggéey leneen xasiru anfusahum ñàkk nga ba ñàkkaale sa bopp mooy dañ lay nangul li nga am lépp lu baax suñu borom sànni ko la bon suñu borom taxañ ko boole ko yow tàbbal sa wax wala ayaadu billah laa yi jàpp naa ni kenn ku nekk ci ñun sa laayaay bopp yow yaa ko moom Abdullah ibn Omar doon na ko bàyyi xel radiyallahu anhu wa arda mbokk yi xoolal loolu ku yonent seedeel lim ko seedeel keroog bi yonent bi nee sallallahu alayhi wa sallam fii ku fi teew tàbbi àjjana fa la fekkoon Abdullah ibn Omar sawara du la laal fa la ko fekkoon yonent bi ni ah kii de ci jaamu yàlla yi wàlli yàlla yi la bokk mbokk yi xoolal kooku yonent bi jàngal ko Omar di baayam mu bokk ci waa àjjana insha allah te ba léegi rek teewut xelam mi ngi rëf-rëf ak ñàkk dal billahi aleykum fa kayfa kan lan ngay gam-gamlee yow kii ak nit yi jamono tey bii nga xam ne ndeysaan di way sama bàyyi rek sabab lay doon pour ma bàyyi julli ak ñun day jaamu yàlla gam dañ cee nab nabe rek waaye jarut sonn ndax sëñ bi defar na lépp publiquement rajo rajo laa wax rajo kilifa diine goo xam ne ah julli ak woori de yooyu amul solo dañ ci nab nabi rek moom xanaa dañ koy barkeeloo rek waaye suñ bi rek leen lépp àllaaxira ba pare rajo laax rajo waxuma ay conférence yi de rajo international ak ñoom diw de buñ la tooñee moom bu yeboo nga taayee fayeeku ndax ku bokk ci waa kër ñoom diw allahu akbar boo demee sayi musulmi taay man batia bihi amalu lam yulxiq bihi nasabu ku say jëf taxa taar de saw askan du la taxa dabe mbokk yi xadis boobu dama yaakaar dañ koo gisut yent yàlla bi nee na ku say jëf tax a tardé askan waa nga bokk du la tax a dabe man bati a bihi amalu lam yulxaq bihi nasabu ku say jëf tax a tardé saw askan du la tax a dabe yent yàlla bi woona Fatima ni ko hey kaay laaj ma ci sama alal ndax maa moom sama alal waaye allaaxira moom yëgal ni mënaluma fa dara mënaluma la fa dara yàlla ni ko waxal xul waxal neel gaa yi nee leen laa amliku li nafsi darran nafan wala darran man yonent bi mënaluma sama bopp njariñ amaluma sama bopp lor mënuma dàq sama bopp lor lu dul lu soob sunu borom walaw kuntu aalamul xayba su doon kumpa xam naa ko ba xam àllaaxira la fay xew te yàlla waxuma ko lastaksitu min al xayr li may def ci naa ko xeeb dolli wa ma mastaniya suu kon musiba du dal ci sama kaw waaye in ana illa nadirun wa bashirun li qawmi yuminuun man mbindeef laa moo xam damay waar ak a xuppe ñeel ñi gëm yàlla qul ma qul waxal neel gaa yi ma kuntu bidaan min ar rusul ah nekk ma benn waaye bu ñu tundum rek foccet rek nekk ab yonent waaye yonent yi am na ñu ma jiitu woon wa ma adri ma yufaalu bi wala bikum man yonent bi sax ëllëg lu ma yàllay def xawma ko lu dul lam ma ca wax wala bikum nan la yàllay jëflante yéen xawma ko lu dul lam ma ca wax mu ne in attabiu illa ma yuha ilay li ma yàlla wax yu rek loolu laay topp in ana wa ma ana illa nadirun mubin mu ne man ab xuppekat ak waaratekat laa mbokk yi lii nit ñi nañ ko déglu jëfandikoo seeni xel xam ne yu bari ay nax la rek ay alaxira buñ fa demee ci ron keppaaru diw la ñuy nekk ak ah alaxira diw rek wallahi loolu mbokk yëpp ay nax la du dara amul de amul de ndax jàpp naa ni kii askan wi mu bokk xelam waroon naa mën a dal ndax ku dem ba sësaloog yonent bi ci ay maam Omar di sa baay nga bokk ci waa ajana insha allah te teewut rek mi ngi jëf ay jëf yoo xamante ni da koy tiite ngir ëllëg borom bi subhanahu wa taala boole ko ci ña nga xamante ni leen di bugal kon yooyu mbokk yi am njàng mu rëy la moo xam dafa yee doomu aadama yi ñu xam ni yii ñuy wax fii yëpp classement yi ci àdduna yëpp kontul de di wa yore lii ak di wa yore xéewal gi àjjana ak diw moo ñuy fay ak diw moo ñuy nangam yëpp dara kontu ci lenn moo kont moom mooy nit ku jëf-jëf ju baax suñu borom fay ko dafa mel ni waxtul azan wax waxaan man yor bi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
ashhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
عبد الله بن عمر خوفه من الله سبحانه وتعالى وبكاؤه من خشية الله عبد الله بن عمر ak nim ragalee woon sunu borom ak nim doon jooyalee sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi ragal sunu borom day mooy ngànnaayu aji gëm yàlla ji gën a rëy waaye yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñaari bët a ngi nii yoo xam ne sunu borom du leen lakk ci safara bët bu njëkk bi mooy ki nga xam ne dafa fanaanee garde ci loo xam ni mbiri jullit ñi la comme jullit ñi nekkoon ay soldat ci misaal li doon am bu njëkk ñu am seeni noonu fu ñu war a fanaan ñu ne kan moo ñuy garde nga nangoo volontaire doo nelaw wala yu ko nuru yi nga xam mooy dugg ci atteem yéen si yàlla may ki ko fanaanee def yàlla du lakk boobu bët ci safara wala waa ji nga xam ni wéet na mu xalaat mu tiit ci ay bàkkaaram mu jooyal suñu borom loolu bari waa na lu mu jooy te fekk la ñuy jooy dëgg dëgg ak lan war a jooy bokkut waaye ki jooy ay bakkaaram bokk na ci sabab yi nga xamante ni day waral sunu borom def nit ki du lakk ci sawara abdullah ibni omar bari waa na moos léeg-léeg lu muy fàttaliku sunu borom ak màggaay ga ak xéewali ajana ya ak mbugalu sawara ma lu dul ndeysaan dafay jooy kal usfuri al muballali bi ma il matar daf doon jooy ba mel ni picc moo xam ni dafa tooy xépp ndax ndoxum taw mbokk yi xoolal yii yëpp ku ko am ci ay xeeti garanti jàpp nañ loolu ay garanti la mbokk yi ah ay garanti la de ay garanti yu bare bare bari xëy na teewul badar waaye xoolal garanti ak badar bàyyi leen waa badar laa wax tout tranquillement bàyyi leen waa badar ndax suñu borom tiim na leen mu ni yéen ñëpp baal naa leen seen i bàkkaar mbokk yi xool boobu garanti yéen ñii laa wax yéen ñëpp te jaabir di leen nekk ne matoon nañ ay ñeenti téeméer nit ak lu toog ëpp nañ ko sax laay wax ah kenn du ci dem sawar xoolal xeeti garanti yooyu waaye taxut benn rek nit ki am confiance ci loolu ba tax mu sàggan loolu nag man li- sama seetlu bopp li ma jàngal mooy vraiment ñii miritoo woon nañ garanti yi ndax ku dem bañ garanti la te teewul nga ngay góor continuer mooy li nga doon def da nga cee sérieux mënatoo koo bàyyi xaw ma dégg ngeen wax ji wala dégg maanaam garanti yu mel nii vraiment ñoom mérito woon nañ ko lu tax ndax kun garanti garanti yu mel nii da tey nga gën a góorgóorlu la muy wane mooy lii dafa sérieux ci yow waaye bu doon ku sérieux wul ba léegi arrêté na ko abdullah ibnu amar naafia nee na ndeysaan bari waa na aaya joo xam ne saa daawu bëgg sax mu dégg ko abdullah ibnu amar naafia te wax naa ne naafia ba keneen bu ko jege woon yu bari am na yu bari yoo xam nit ñi duñ ko xam waaye ki la gën a jege mën na koo xam ndax nit ki day man lu mën dina bëtt borom bi fi muy waxee ci suuratul ah xasri foog naa fi sunu borom di wax nii alam yani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah sunu borom ni xanaa nag jot na nag xanaa jot na nag ñi gëm yàlla seen xol yi xobbeekuwaat yëngatuwaat tuddaat tiit ragal seen borom subhanahu wa taala xanaa loolu nag jot na léegi allahu akbar naafia nee na laaya jooju sawaruma woon abdullah ibn omar di ko dégg ndax saa bu ko déggee rek damay gis misaal mu jooy jooy yu bare bare bare samir arrayaxi mu jëlee ci bàyyam nee na abdullah ibn omar benn bis dafa mar naan ñu jox ko ndox bu sedd comme ñun liñ gën a bëgg tey rawatina ci waxtu wiñ nekk muy tàngoor nee na biñ ko ko joxee rek mu téye ko ndeysaan dafa pët pëti mu daal di jooy jooy yu metti biñ ko laajee lan lay jooy mu ne dakartu ayatan fi kitaabillahi azza wa jal dafa am benn aaya ñëw ci sama xel aaya jooju moo ko tiital aaya jan la borom baa ngi wax ni wa xiila baynahum wa bayna ma yashtahuun allahu akbar sunu borom yi nit ki dafay espérer wu yaakaar dugg àjjana dem ba àllaaxira yaakaaram tas muy espéré wu mos tuuti ci xéewal sunu borom ni wa xiila baynahum wa bayna ma yashtahuun sunu borom ni dox naa digganteem ak lan doon gën a bëgg allahu akbar la nga gënoon a bëgg mu ni sunu borom def baaraat sa digganteeg moom doo ca mën a jot mu ni fa araftu anna ahla annaari laa yashtahuuna shay'an shahwatahum almaa allahu akbar wallahi wa xaqa lahu dhalik mu ni sunu borom ni dox nañ seen digganteeg lan gënoon a bëgg te xam naa ni sawara ku fa dugg te xam ngeen ni sawara dafa tàng comme dafa tàng waa sawara mu ni amul lu mu gën a bëgg ndox mu naan firnde ba mooy ca suratul aaraf talab bi gën a rëy mbokk yi waa safara di wut di ko sàkk an afiidu alayna min almaai aw mimma razaqakum allah allahu akbar yéen waa àjjana ngir yàlla dimbale leen ñu ngeen may ñu ci ndox mi ñu naan même bu doon ab duux sax doy na aoudu billahi min ashaitan rajim aoudu billahi min annar waa sawar seen talab bi gën a rëy mooy an afidu alayna min alma yéen waa sawar yéen waa ajjana dimbale leen ñu même bu dee juraatu ma buuxaat ndox sax baax na bu ngeen ko mënul aw min ma razaqakum allah lu leen yàlla wërsëgal ngeen mën nu cee may rek xam ngeen ni diggante sawar ak ajjana suñu borom da ci def benn xijaab dañuy gisante وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون بسيماهم وأجن دي سين وسورة وسورة دي سين وأجن ngay seen ñoo xam ni xamoon nga leen gisoon ngeen ko sunu dars bi passé surtout Safaat may leen nu ci li nga xam ni mooy ndox mi wala leen sunu borom wërsëgal allahu akbar xoolal tontu mbokk yi ni mu méttee inna allaha harramahuma ala alkafirin bañu ñu leen a may ndox ñun ay nit yéen ay nit lañ ñun bañu ñu leen a may ndox waaye yàlla moo araamal ci yéen naan ndox allahu akbar loolu mbokk yi kenn ku ne ci ñun war na koy bàyyi xel bu baax a baax ndax bokk na ci aaya yi gën a mën a jàjj xol ngir nit ki delluwaat ci boromam fàttaliku bu baax a baax abdullah ibni omar mbokk yi bëggul woon mukk ku koy tagg benn bis benn waay naan ko ah yow de ku baax nga yow doomi ku baax nga omar ay sa bàyyi comme ni ñun niñ bëggee tagg mu daal di mer xultoo xultu wax a wax a wax ba xol yi xol bi ndeysaan fees mu ne nii ngeen di def rek topp ni di ko jay ba mu xëy xal ko tàbbi sawara su boogul ma leen daal di génn dem yoonam allahu akbar contraire ñun la ñun kenn ku ci nekk yaa ngi bëgg ñu lay tagg ñun xoolal mbokk yi kenn ku ne man maay tàmbale sama bopp natt leen seen bopp da ngay fàttaliku léegi nit ñi di la tuddal yow yaa nga yi kontaan amaa ki la woo di la xas ah yow bàyyil triant bàyyil jubadi da ngay mer doo bëgg ku la waxal say ay fekk ñoom dañ doon sawar ku leen waxal seen ay seen jaamu yàlla moom bu ci dugg yow naafia nee na abdullah ibnu omar su jóot na ci kaaba gi ma jege ko di dégg muy wax ci sujjóot bi mu ne yow yàlla yow yàlla su suñu borom yaa ma moom waaye xam nga ma xam nga ni man mii ku am possibilité la pour mën a xëccoo nguur comme ni ko waa Màkka yi xëccoo ndax askan wi ma bokk waaye xam nga ni li tax ma sib ko mooy ragal rek ëllëg ma daje yow nga di ma àttee lu may mbugalee allahu akbar Saïd ibnu Musayyab nee na ñi nga xam ni teg naa leen bët su amoon kenn koo xam ni ñeme naa koo garanti ni ko yow àjjana nga jëm mu ne Abdullah ibnu Omar laay tànn allahu akbar te xam ngeen Saïd ibn Musayyib fi al-ilm wa taqwa wa zuhd wal wara ka saabiqihi wa laaxiqi kon nu ngi taxaw noonu di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla tàggatalaat nu ay nit yoo xam ni dañuy mel ni Abdullah ibn Omar ci roy sunna te yal na yàlla boole ñu sa mbooloo mooma yal na suñu borom defal ñu tawfiq ba lépp loo xam ne dañ koy xam mu nekk lu nuy jëfee bala muy nekk wabaal alkane sa këpp suñu kaw allahuma inna nasaluka alfirdaws al aala اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين